Sunugal 24 point net l'information à sa xarit yi yéen ñuy bàyyi xel bu baax seen émission bi la di xalima gu ñëw fii ci Sunugal 24 point net ñu ngi leen di dalal jàmm mbokk yi xalima gu ñëw comme ni ngeen ko baaxoo di xamee mooy émission bi nga xamante ni day sol dalam dem seeti ñi nga xamante ni yàlla daf leen may bu baax ci xam-xam te seen xam-xam boobu ñu yéene partagé ko ak askan bi nga xamante ni moom mooy askanu Sénégal bi nekk ci biir biti réew ak keneen ku nga xamante ni yittewoo nga xam-xam yu nu mel ak foo ci nekk ci àdduna bi ñu jaarale ko ci technologie bi ñu partagé ko ak yéen tey ki Eh, ki ñu dalal tey mooy Serigne Bassirou Dienne borom Dienne ak la gen Serigne Bassirou ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk euh, internet yi lay bàyyi xel fii ci sunu sunugal 24 point net laataa ñu dugg ci laaj ak tontu. waaleykum salaam wa rahmatullah waa sunugal 24 marhaban bikum ahlan wa sahlan ñu ngi leen di wax dal leen ak jaamu yegg ci ngeen ci seen kër bismillah. comme ni ma koy baaxoo di waxee rek sant Dienne ci ñun réew moom doy na carte d'identité Serigne Bassirou Dienne tey li ñuy commencé suñu waxtaan mooy ñaan yàlla ñaan nga xamante ñoom dañu koy faral di amati xel ñaar ñenn ñi ne ñaan yàlla moom yomb na nit ki rek mën naa toog ñaanal boppam lu tax nit di war a mën a dem ci sëriñ pour mu ñaanal ko. waaw euh, maanaam euh, euh, àdduna moom dañ koo bindee noo xam ne. Mhm. yàgg naa ko wax mooy aaya boobu lee taq sa bax doom bax moo tax. Mhm. kenn ku nekk day soxlaal moroomam. Mhm. waa kenn mëtlewut complet def lépp. kenn ku nekk daa am loo man keneen man leneen keneen man leneen ñu mën a composé ñun ñëpp pour mën a dund yàlla képp moo doylu ba soxlaalul kenn dara moo ne antum fuqara ilallaahi wala huwa alxaniyul xamidu kenn ku nekk di nga soxlaal sa morom ni nga xamee ne e, nii ngeen yore caméra bi boo ma ko joxoon man xawma ko noonu la demee maanaam e, yàlla doonut koo xam ne daa nataalu sax ci benn béréb wala mu sax ci benn dëkk boo xam nit ñi dañ ko fay fekk loolu amut wa wa maakaa li basharin ilaa waxyan amin waraay hijaaban fa yursil rasulan fa yuuxee bi isnihi maanaam jë yellut jaaduwut ci benn mbindeef mu wax ak yàlla directement kon ñaan bi ku ne mën nga tàllal ñaanal sa bopp waaye nag yoon ba moo wuute ndax bi suñ borom tëralee ba bind mbindeef yi da leen tegal ay tur yoo xam ne tur yàlla yoo am ci lañ jaar di ñaan ku ne nag mën nga caa ñaan ñi yor ñi yor ñi yor caméra bari na waaye ñi mën a film bariwut mm-hmm. ñi yor caméra bari na waaye ñi mën a monter bariwut mm-hmm. loolu nag moo wutee ak yëfi mm-hmm. ni nga xamee ne ñi soli yére bari na waaye ñi mën a fóot ñëpp duñ fóot yére noonu la demee maanaam yaram du ñëpp koy raxas du gàllankoor yee baari nit ki ba mën koo ñaan nit nag mën naa taalal ñaan bu boobaa day doon li ñuy wax marchandise mën naa jar mën naa lamb waaye na daa am yoon boo xam ne dañ ko teg mu ndax lépp rek min kulli shay'in sababan euh, moo am maanaam lenn lu nekk daa am lu koy sabab te il faut nit ki xam ko mooy tax mu mën koo jëfandikoo. Serigne Bassirou Dieng suñ ko waxee kenn moom du laaj fan la bokk mais tey dañoo gis ne Sénégal dafa bëri lool ñi nga xamante ni dañuy woote na ay Serigne la léeg-léeg ñu def si ay njombe walla ñu yàq ay addis wala ay isab yu nga xamante ni kenn xamul ni ñu koy yàqee mari day taal lu mel noonu yow boo ko gisee en tant lan la lay def. waaw loolu moom métier bépp la métier bu nekk am na am rax waaye wala su kulma tara mu dawrun kax ka lépp lu ron rek booboo la wala muy miskit moo tax loolu moom ki ko def moom la concerné waaye dangay fexe ba bul ci bokk moom moo gën waaw alors mbir gi xam ne àdduna yépp ko soxla muy am am koom gu sax te du fi jógee léeg-léeg nit am ñaan am alal waaye du yàgg lool ci loxoom léeg-léeg nit am ñaan waaye daal lu muy lijjanti day të léegi naka ngeen di mën a def nit ma nga xamante ni dina am koom mu yàgg lool ci moom ba pare barkeel. waaw àdduna bi lépp maanaam mm-hmm. eh, ñaan moo ko fi taxawal. Mm-hmm. ba ci réew yi gën a naat sax. Mm-hmm. muy réewu nasaraan yeeg réew jullit yi yëpp koom yi ñu yor. yorante yu njëkk ya fa jaaroon ñoo leen ko ñaanaloon moo këpp seen kaw. ndax boo xoolee lu mel ni siif yi nga xam ne ñoo gën a jekk ak nasaraan yi li mm-hmm. ñu yor lépp ci yonente yi jaaroon mm-hmm. ndax euh, sun borom moo ne euh, bi yonte yàlla Moussa ne ista'iinu billaahi wasbiru anna lar li laay yurusa man yasa'u min ibaadihi mm-hmm. sun borom euh, dane wala aqibatu lil muttaqiina nga xam ne boobu xibtu ak Israël ñoo fi nekkoon maanaam mooy xibtu mooy xeetu firawna Israël mooy sëti yonte yàlla yaqub alayhi ñoom ñaar ñoo fa nekkoon Firawna notoon leen bi yonte yàlla Moussa ñëwee lam ñaanal yàlla yàlla dimbali ak njabootam ba ba àddunay tukki ñi bokk ci njabootu yonte yàlla Moussa alayhi salaam dañuy tedd ca ñaanu yonte yàlla Moussa googu la déparé mooy siif yi boo xoolee fi mu ne koom-koom àdduna bu bari ci ñoom la tege leneen li nasaraan yi yonte yàlla Isa alayhi salaam moo leen ko ñaanal leen jullit ñi yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko ñaanal mm. ba ci fii Sénégal coow lu bari lii fi am fan yi pétrole bi sax mm. li fi nekk lépp ñaani nit ñu baax ñi fi dallu di noppalu mm. ñoom ñoo ko fi ñaanoon te day gën a yokk nag gisaguñ dara lii maanaam ab tàmbali la rek waaye lii ñëw mooy ëpp fuuf ci kàttanu yàlla te lépp dana tey kon ñaan lu am solo la nga xam ne maanaam nit ki lépp lu ko jafe ci àdduna rek na ko ñaan yàlla ndax yàlla xéewal yi mu yor doyewu ko dara te da koy joxe mm-hmm. moom moo ne walillaahi lasmaal husna fadoohu bihaa mm-hmm. kooku day tegtale ne maanaam am na lu ñuy wax ak nuuraani yu nuuraani yu mooy tur yàlla yi nga xam ne ci lañ mën a ñaane mm-hmm. asmaal husna mooy nekk ci alxuraan ñu koy tuddee 99 ñii ne téeméer la sax am na ci yenn ay tur yàlla yoo xam ne bokkuñ boolewuñ leen ci asmaal husna yi nekk ci alxuraan waaye teewut ay tur yàlla lañ yooyu ba tey daneen ci ñaan dafa bari ay yoon kon bu maanaam lenn lu nekk day am contraire kon bu tur yàlla amee kon am na tur ay xërëm yoo xam ne nit ki da ciy ñaan mu nangu moo tax alxuraan teg ci ne wa zarul la si doon fii asmaahi waaye nag boo ci ñaan ci ñaar yooyu yëpp sayu sow na maakaana yaxmaloon ci ñaar yëpp la ñuy fayee ci côté waaw nga xam ne kon eh, eh, eh, ñaar ñoo am ima shakiran wa ima kafuran yoon bii nga xam ne nit ki da ciy cant cant gu leer ak bi nga xam ne da jaar pour weddi ñaari yoon képp ñoo am ci ñaaninu yàlla te ñaar yëpp dañ koy nangu. juróom-ñaari ponkal yi nekk ci Sénégal nekk milliardaire te jaar si sa xalima euh, cheikh bi fan nga jaar ak ñoom ba ñu nekk milliardaire. waaw loolu moom du lu ñuy nataal ci écran waaye mhm. fi ñu jaar ak ñëpp lañ jaar ak ñiy ñëw ak ñañ ko defoon mhm. ndax loolu lépp ci ay xeetu ay xalwa ak ay génn sarax yoo xam ne mhm. ci lañ jaaral kilifa yu baree bari di leen ci fal di leen ci folli mm. waaye nag loolu lépp dañ ko def bi isnillaahi mm. wa iraadat yi dañ ko def ci nameelu yàlla gu ñu yàlla may mm. ndax maanaam loo xalaat ne mënta nekk rek eh, ba xalaat ne yow tëna la am na jaam boo xam ne yàlla may na ko ko yàlla dalay maye may ba nga naagu ba njort ne yow rek la may mu ne la fii ma la yemale am na beneen jaam boo xam ne fi laa koy tàmbulee wa ma zalik xalalaahi bi xasiisin loolu jëfewut yàlla wa zalik xalalaahi yasirun te loolu yomb na yàlla mm-hmm. moo tax kon loolu lépp ci ndimbalal yàlla lañ koy defe jërëjëf Serigne Bassirou Dieng nee naa leen moom la ñu dàkkantale borom basmala mu nekk fii ci Géejawaay maanaam pont Malibu boo ñëwee bu foofu rek boo wootee ci numéro téléphone yi nga xamante ni moom ngay gis mais affiché ci barre écran bi mën nga ko jot numéro yi ñooy 78 211 14 14 wala 70 757 04 13 ba léegi ñu xuus. ci waxtaan bi Serigne Bassirou dañu gis ne ñun suñu réew yi maanaam Afrique euh, koom-koom daf fi am waaye coow day bëri lool ci suñu njiit yi président yi mais yeneen dëkk yi soo seetloo ñoom seen président yi gëmuñu yenn yi comme ñun ni ñu gëm mais ñoom ñoo ñuy gën a dal lan mooy waral lu mel noonu day ay problème leadership la ñuy am wala ay ñaan wala ay xeex yi nga xamante ni day nekk si suñu euh, njiit yi. waaw xam nga waxoon naa ko ab jamono. wala tanaasoo fataf solo mm-hmm. bu leen di xëccoo bu nga defee fataf solo da ngeen di échec fataf solo mooy échec moom la olof di firee yong mm-hmm. bu ngeen dee xëccoo da di néew doole mm-hmm. dootu leen amati doole loolu nag moo am ci fi ñuy wax al ifriqiya xëccoo bi dafay bari ba ñaare ak loolu lépp xubur yaasa maanaam xëccoo nguur état li gën nag mooy comme ñu liggéey nit ki lépp lu muy balaa moo jot ci nguur na fekk mu liggéey ba nga xam ne la mu waroon am am na ko kooku bu yoree réew mi na mu ko bëgg def dana ko fa jaarale. Mm-hmm. ndax ku mel ne Donald Trump. boobu jiitee amerique bu ñu xoolee. Mm-hmm. maanaam bi mu yor réew ma fekk na mu liggéey ba doon ab milliardaire. Mm-hmm. nga xam ne kooku soxlawul alalu dëkk ba. te buur yu ci bari ñoom politiciens yi dañoo jàpp ne maanaam. alal moom dañ koo war di lekk alalu askan wi ak gert rek. te loolu Alxuraan dañu ko nettali. ndax benn ci balxiis bi doonoon mm, mm, buuru Saba mm. bi yonte yàlla Suleymaan alayhi salaam bindee ko leetar di ko bëgg mu jébbalu si da jéem a ger yonte yàlla Suleymaan alayhi salaam di ko yónnee alal ju baree bari eh, eh, yónnee na ko alal ju baree bari bi mu laajee conseil ba pare bi ko conseil bi ko ñooñu waxee mu xamal leen ne buuri àdduna yi ñoom yàq rek lañ man eh, inal muluuka izaa daxaluu qaryatan afsaduuhaa wa joola anxila asir wakasaan yaqulun wa ini morso ilayhi bi hadiyat fa naasiratu bi ma yar jox joxul morsaluna maanaam dama koy yónni dama koy eh, buur yi bu ñëwee dañuy yàqte dañ lay toroxal toroxal saw askan kooku kon jëruñoo xeexal daa tegoon Souleymane buuru àdduna te Souleymane boobu boobu am na garaat yonente ñaar yëpp la boole woon moo tax du mooy yàlla léegi nag mu yónnee ko ak guerre Euh, bi hadiyatin foofu ger lay tekki loo alal ju mu ko yónnee jox bëggoon a koromp yonte yàlla suleymaan alayhi salaam mm. bi mu ko yónnee yonte yàlla suleymaan alayhi salaam dane ko atumiduni nii bi maa leen fa ma aatee ni laa xayri ma aataakum mm. ko kon bu ci ñëpp président yëpp defoon noonu rek dina baax mm. kenn ku ci nekk bu nga jàpp ne li la yàlla jox pal gi mu la fal moo gën leneen kon bu boobaa àdduna bi dana tege ci yoon. Mm-hmm. sëriñ Bassirou ñu émission bi bëri nga ay taalibe lool fi nga xamante ni mooy biti réew fan nga jaar ñoom ba tax ñoom ñu am confiance bu mag ci yow. waaw teg ko ci yoon ak teg ko ci ndimbalal yàlla ak mm-hmm. nangoo liggéey mm-hmm. ndax maanaam eh, li ngay eh, boo defee yëfi ci deret def ko ci eh, baatin may yàlla am ci la des nag mooy nga toog jëfe ko. ndax nit ki loo mën a am rek liggéey bi ci la liggéey bi nag mooy nga respecté ko maanaam la nga waxanteeg nit ki bu ko defee yow ti la la ca war ca liggéey nga def ko nga sàmmante ak la ca war liggéey nag liggéey ñaan lu xaw a metti la ndax ñii da ngay jaar ñoom ci ay sangat ñi nga jaar ñoom génne leen sarax ñi nga jaar ñoom ci wàllum kurus te yooyu yëpp nag wa maa la ila lazina sabaro wa maa yulqaa ila zuasin asimin il faut nga mën a muñ ba pare am ndimbalal yàlla mooy tax loolu lépp bu dajee nag alxuraan daa am fu wax ne oh, illal la si amoon na saalihaati wa qalilun maahum mm-hmm. ñooñu nag ñu néew la kon ah. moo tax il faut nga travail liggéey. alhamdulilah bi nga ci bokkee mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy teewlu ci xalima gu ñaw newoon naa leen émission bi la moom ku xalimaam ñawul du ko dem seeti te ñu seet si borom xalima gu ñaw di Serigne Bassirou Diène ci pont Malibu yéen ñi ko soxla mën ngeen ko jot ci 78 211 14 14 wala euh, bi ñu ngi si cappaandawu émission bi lan ngay tàggoo mbokk yi la doon teewlu. waaw maa ngi jégalu ñëpp di balu ñëpp àq. képp koo xam ne gis na ci loo xam ne njuumte la ñu ngi koy jéglu bu baax ndam wuñ omal faxru ilal xasmo falaat sakko anfusakum wala talmiso anfusakum kon moo tax ñu ngi jégalu ñëpp di ñaan la ma daan ñaan di ñaan yàlla mu muyal ma mu musal ma ci ay ku iñaan rawatina ku jëfandikoo iñaanam wa min sari hasidin isa hasada wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala